ku gis lii rek daa nga xam ne liggéey doon suñ tubaa nangu na ab liggéeyam alhamdulilah lii kon mandarga mu foor la di wane ne ku jox suñ tubaa sa lépp waaw ku di jox suñ tubaa sa lépp bu la fayee rek li ñaan bu la fayee nga ruus mooy lii ndax ko gis ne mu daan def ci màggal bi mhm. xam ne sëñ bi ko doon lii seeral na ci àdduna bépp sëñ tubaa rek mat a jàpp

Ah, mu nekk aw yiw woo xam ne dañ ko koy fulal suñ borom moom man dalladi yuqridu llaha man dalladi yuqridu llaha qardan xasanan fa yudaa'if lahu adaafan kathira yàlla képp ku ko lebal benn bu baax dana lu ko fulal fuluk suñ borom nag kon xam ne ne ab lim bu kawe lay nekk bu boo xam ne xajut ci xiyaasu doomu aadama kon xam naa am na ay mbokk yoo xam ne ñëwoon nañu ànd ak moom ngir jébbal ko boromam am naa kenn ku ma jàkkaarlool sëñ euh, sama wóllëre bi nii ma fekk ko fi mu ñëw doon gunge si euh, sëriñ bi bu ma la doon laaj ay kàddu témoin loo man a joxe comme ay témoignage si sëñ Atou ana yan kàddu ngay wax lan moo nekk ci sax aouzu billahi mina sheytaani rajim wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha mina sheytaani rajim rabbi aouzu bika min hamasati shayatin wa aouzu bika rabbi an yahdurun rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bi ñu sante suñu borom jullu ci sangub sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu sant suñu jàmbaar ja Xaadimu Mustafaa di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mi nga xam moo fi toog di ko ñaanal bépp naal boo na ko liggéeyal Serigne Touba mu def ko ni mu ko bëggee te ànd ko mbokki julli ak mbokki taalib yëpp ma xandoor bu dammee ci awaar wàcc na euh, euh, ku <laughs> baax a baax kon xam naa ne maa ngi euh, janoo ak euh, Serigne Ibrahima Ndiaye di des di sama oustaz di sama xarit macha allah mu ñëwoon euh, di gunge Serigne Ato Diagne responsable moral bu daara Hizbut Tarqiyyah sëñ Ibrahima Tawfekh Production moo lay tàllal micro am di la laaj ana yan kàddu yi seere moom nga mën a suñu jëwriñ ju baax ji nga xam ne moom lañ ñëwoon di ko jébal xadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki Tawfekh Serigne Guédé maa ngi lay nuyu di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoo lay suivre. di rafetlu kàddu yi xanaa di leen ko jaale di ko jaale suñu bopp suñu jëwriñ la woon joo xam ne wax dëgg yàlla lii rek lañ ko manal tey mooy tey ñëw delloo ko boroomam ànd ak moom gunge ko euh, ñaan suñu boroom mu xaara ko aljana taas nu ci barkeem ndax mboolem tey ku fi teew ku nekk mhm. xolam tooy na mhm. waaye nag tamit wane na ne moom tëddoon di nelaw rek waaye liggéeyal na yàlla tey jii ba tey jii xool yi topp ko moo waral mbooloo mi jóge ci barab yu nekk tey jii ñëw teewee si denc ba ñun tamit loolu moo ñu indi doon mottali su kóllëre ko nga xam ne moo doxoon suñu digganteek moom te Serigne Touba rek taxoon injaazaar yi nga xam ne moom def na ko ku ne xam na ne ku ku ku ku indi ku defay injaazaar yu bari la ku teewal lu bari bari la ci yoon murit boo ci doon am loo ci tudd rek di ko fàttali ñi ànd dëgg la euh, sëriñ Gédé sëriñ Aatu mhm. euh, def nay injaazaat muy ay réalisation yoo xam ne def na ko ci yoonu murit mhm. euh, kenn ta wax li sëriñ Aatu def mhm. waxoo li ñuy wax maanaam culturel maanaam euh, melokaanu yoonu murit mm-hmm. maanaam ni nga xam ne noonu la ko sëriñ Abdou Lahad Mbacké jàngalee mm-hmm. loolee ba mu ñëwee daf ko daf ko daf ko daf ko daf ko incarné mm-hmm. euh, indiasaat yi euh, boo demee complexe daar istarxiya da nga fa fekk luy wone ne moom mii moom jàmbaar la woon ku taxawoon la tamit ci liggéey sëñ Tuubaa gani màggal gi ak màggal gi tamit xamee nañ li nga xam ne moom lay taxaw moom sëñ aatu ci wàllu màggal gi ak la cay jëm lépp mboolem ku gan ku jógee ci bitim réew ak ñi nga